jaageen jëf mbokk yi daleen ak jàmm ci seen chaîne bi di Assalaamy TV ci seen rubrique sur le net di rubrique boo xam ne dañuy jukki ay xibaar yoo xam ne day bàyyeekoo ci internet bi ngir jox leen ko ci seen chaîne bi di Assalaamy TV mbokk yi tey sur le net dañ koy door rek FASTEF di faculté des sciences et technologies de l'éducation et de la formation bi nga xam ne mu nekk ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru lu ëpp ñetti téeméer yoo xam ne dañu tàggat ci boobule faculté. ñoom nag ñu doon amal jano ak taskatu xibaar yi doon ñaawlu li nga xam ne moom moo di seen examen yi nga xam ne bañ ko defee ak léegi mat na at ndax examen yi ñu ngi ko defoon ci mois d'août 2019 ba ci mois de juillet 2020 bi nga xam ne mat na at ba léegi jotaguñ seen résultat examen yooyu ñu ko ñaawlu nag ndax nee ñu administration bi defuñ ci benn jéego waaye it ñi nga xam ne ñoo di nguur gi defuñ ci benn jéego ngir saafara jafe-jafe yooyu nga xam ne jamono jii moom moo am ci boobule faculté ndax fi mu toll nii war nañ jot seen résultat yooyu ba wan a wéyal li nga xam ne moom moo di seen formation ki nga xam ne moom moo di Ibrahima Diallo moom moo wax ci seen kàddu ci jano bi nga xam ne moom lañ doon amal ak taskatu xibaar yi tey jii ci alxames gi dëppook le 16 juillet 2020 mbokk yi ba léegi xibaar yi nga xam ne mooy bàyyi ko ci internet bi ambassadrice bi nga xam ne moo teewal réewum Suisse fii ci Sénégal ginnaaw kàddu yoo xam ne boroom këram yëkkati na ko mu jëm ci doxalinu réewum Sénégal mu bind ko ci euh, Facebook loole nag nekk kàddu yoo xamante ni wax na ci ni nga xam ne noonu la takk der yi doxee ci réew mi waaye it yenn kilifa yi seen doxalin ba ci biir réew mi loolee nekk loo xam ne kilifa yi réewum Sénégal rafetlu wuñ ko rawatina jëwriñ ji nga xam ne moom lañ dénk wàllum bitim réew di affaire étrangères di Amadou Ba loolee tax na sax mu woolu woon ambassadrice boobu di madame Marion Krupski jëwriñ ji nag ginnaaw bu mu ko wooloo ñaalu nañ kàddu yi waaye nag xamal ne ko ne ko yooyu la kàddu warta jip ndax euh, képp koo xam ne dafa teewal réewam ci réewum jàmbur warta yëkkati ay kàddu muy jëm ci réew moomu na nga xam ne noonu lay doxalee am réewam ndax day wuutee convention de Vienne li nga xam ne moom la wax ci le 18 avril 1961 mu jëm ci euh, doxalin jëm ci wàllum diplomatie mbokk yi ba léegi ci xibaar euh, sur le net ginnaaw négociation bu yàgg boo xam ne Union européenne amal nañ ko ak réewum Sénégal ginnaaw buñ gàntalee woon roppalaan yi nga xam ne ñoo bàyyeekoo fii ci Sénégal ngir dem ca yenn ci réew tugal yi loolee nag léegi nangul nañ Sénégal roppalaan yi nga xam ne ñoo fi bàyyeekoo di dem ci espace Schengen loolee nag ki nga xam ne moom moo ko ne moom moo di directrice de la santé publique di docteur Marie Xemes Ngom ci nemmeek goo xam ne ñu ko doon amal ci aéroport international Blaise Diagne ginnaaw bu ñu ubbiwaatee li nga xam ne moom moo di vol yi nga xam ne ñooy jëm ca bitim réew loolee nag ginnaaw bu ko nangulee Sénégal fekki na yeneen réew yoo xam ne. nangu nañ leen ko fii ci Afrique bokk na ci Algérie Tunisie Maroc ak Rwanda. ba léegi sur le net ñuy waajal li nga xam ne moom moo di tabaski atum 1441 ginnaaw gàddaay ak yonent bi salallaahu alayhi wa sallam di atum ki nga xam ne moo di jëwriñ yi nga xam ne moom lañ dénk wàllum càmm gi ak lépp loo xam ne mooy bàyyeekoo ci jur gi muy ministre de l' et production productions di Samba Ndiobène war na amal nemmeeku ci yenn diwaan yi nga xam ne ñoo nekkee ci réew mi ngir xool li nga xam ne moo di euh, li ñu yittewoo ci wàllum xar ak jafe yi nga xam ne moom moo ciy am ngir xool nuñ ko saafara ba tax na dana dem ci euh, samedi bi nga xam ne moom lañ mël fële ca département bu podoor ca Rosso Sénégal waaye it ca département bu Dagana ngir xool li nga xam ne moom moo di xar yi ndax ñu ngi dugg ci si réew mi ndax xar yi doy na loole nag nemmeek googu ci demee sa podoor dana dem ci daral bi nga xam ne moo nekk ca Medina Njatbe waaye it ca Rosso Sénégal dana fa dajeeg ñi nga xam ne ñoo ñoo di kilifa yi nga xam ne ñoo yor ci kaaraange gi foofulee ci frontière bu dox ci diggante Sénégal ak Mauritanie waaye waxtaan ak ñi nga xam ne ñoom ñoo di waa duwaan ak ñi nga xam ne ñoom ñoo di waa élevage yi nekkee ci boobule frontière ngir xool nu ñu yombalee xar yi ngir mu ñu mën a dugg ci réewum Sénégal waaye ginnaaw bi nag dana amalaat beneen nemmeeku ci beneen bërëb boo xam ne dañ fay jaay xar te nekkee ci euh, ville bu Saint-Louis ca bërëb bi nga xam ne moom lañ naan Marmiyal mbokk yi ba léegi sur le ñu wax ci wàllum taw bi ANACIM di agence nationale de l' civile de la météorologie ci benn euh, bulletin boo xam ne génne nañ ko nee ñu ci diggante ñaari fan yi dana am ay taw yoo xam ne dana wàcc ci euh, bët saalumu réew mi waaye nag taw boobu dana yaatu ba ñëw ci digg réew mi soowu réew mi loole nag nekk na taw yoo xamante nii dana yaatu lool muy ci euh, àjjuma ji dëppoo le 17 juillet jàpp fi nga xam ne moom moo di ci samedi bi loole nag ñu ngi ko xamle ci bulletin météorologie boo xam ne génne nañ ko ci diggante alxames dëppoo le 16 juillet 2020 jàpp dimanche 19 mille 2020 waaye it xam ne nañ ne li nga xam ne moo di température yi dana wàcc bu baax maanaam du tàng lool ndax taw yi nga xam ne incha allah ci diggante ajjuma wala diggante alxamis jàpp samedi dana wàcc ci réewum Sénégal ci yenn diwaan yi. mbokk yi seen xibaar sur le net ñu jeexale ko ci réew Mali mu nekk réew moo xam ne jamono yi am na manifestation yu bëree bari yoo xam ne ñu fay am am ñu bari ñoo xam ne ñàkk nañ fa seen bakkan am ñu fa blessé ba tax na CEDEAO yebal benn délégation boo xam ne Goodluck Jonathan mi nga xam ne moo jiite woon ci jamono réew Nigéria jiite boobu la délégation ngir ñu dem fa waxtaan ak ñi nga xam ne ñoom ñoo di kilifa yi jiite yooyu la manifestation di M5 waaye yenn kilifa diine yi bokk na ci imaam Dicko mi nga xam ne fës na lool ci euh, manifestation yooyu le ba tax na ñoom sax ginnaaw waxtaan yooyu dakkal nañ manifestation bi nga xam ne moom lañ waroon a amal ci alxames ji dëppoo ak le 16 juillet 2020 waaye noonu nañ euh, kilifa yi nee nañ ginnaaw dakkal googu daañu amal ay ñaan ci alxames ji ci mbooleem jàkk yi nga xam ne ñoo nekk ci réew Mali ngir ñaanal ñi nga xam ne ñoo ñàkk seen bakkan ci manifestation yooyu waaye it euh, mbootaayu xeet yi di organisation des Nations Unies ak yenn njiitu réew yi nga xam ne ñoo nekk ci Afrique bokk na ci Alassane watara ñoom ñëpp ñu ngi waxtaan ak kilifa yi ngi nekk ci réew Mali moo xam politiciens yi société civile bi ak njiitu réew ma di bu baka kayta ngir ñu xool solution boo xam ne moom lañuy taxawal ngir jàmm mën a delsi ci moomile réew di Mali mbokk yi lii lañ leen jukki tey ci seen xibaar sur le net di xibaar yoo xam ne mooy bàyyi ko ci internet bi gën ci fës ñu leen koy jukkil saa su ne ci seen chaîne bi di Assalaamy TV ak seen site internet di assalaamy point net di leen wax ne abonné leen ci seen chaîne bi di Assalaamy TV ngir am mbooleem xibaar yi nga xam ne moom lañ leen di baaxee santaat leen gërëm leen dig leen daje incha allah beneen yoon ci sur le jëf.